mooy loo xam ne ñiy nekkal askan wi nekkal fi réew mi te bañ a jëriñoo réew mi te jëriñ réew mi bi ñu wootee loolu ñu bind ko tënk ko xalaat ko gis ne ci jeunesse sénégalaise surtout ci jigéenu Sénégal ku ne ci ñoom am na lay nelaw ci yow ñu ne nañu dem ci ñooñu dox ba ci ñoom eggee leen suñu projet bi du suñuy xaliss buñ leen di jox de luñu amul luñ leen di jox waye suñu xel ak suñu xalat ak suñu doole lañ koy indi ko Sénégal ci suñu kër yi ci suñu koñ yi mu tax koñ dem di nga fekk cellule ci kon nan def ñu xool ci seen biir koo xam ne sax laaju ko mu am diine mu am yar mu am ngor loxoom set gaay yi yëkkati parti bi ne ko yaa ñu ci doy teg nañ ko ci sa loxo muy Ousmane Sonko mu nangu leen ko téye ko te ñaawu ci te ñaawagu ci te du si ma sa ñaaw ndax ñu ko woolu dénk ko te laaju ko te ñoom ñëpp ñu mënoon ko doon doyloo ko mu doyloo leen te ngeen am ci wàll yéen waa Thiès ndax ku topp ci usmaan Sonko muy Birame Souleye Diop mu yeewoo ak yéen nekk seen responsable départemental kon yéen Thiès am ngeen wàll bu rëy ci waar wi ci waaru Pastef bi moo tax ma sañ a taxaw fii ndax dama daje ak moom ñun ñu nekkoon ca Ndar ma xam fulam, xam faydam xam détermination xam gëm-gëmam xam bëgg-bëggam xam engagement ci réew mi ak ci Thiès bi mu dëkk and ci ak mom ñu nekk di ci liggéey kon ñaan naa leen ngeen wa yéen waa jàmm ngeen ngeen jàppale Pastef ngeen jàppale sen rak ngeen jàppale sen dom, ngeen jàppale sen jërbaat ngeen jàppale sen mak ak sen tonton muy biram Souleye ak équipe am yépp ak monsieur kon ngeen may ma ma jeexal comme si jaañ bii di woo leen fii kon ànd leen ak moom jàmm gen def benn dànk ñu ànd votel Pastef topp ci moom ndax liggéey bi mën a jëm kanam parti bi nag dañu woote loo xam ne ku ko dégg war nga ci bokk ndax dañu ne les patriotes maanaam ñu bëgg seen réew

ku lañ kon ñun ñëpp Pastef woote na solidarité Pastef woote na ñu gëm seen réew ñu bëgg liggéey ñu fëteeku te ànd ci ak éthique maanaam sellal te ànd ci ak fraternité te ànd ci ak liggéey boo xam ne am na tàmbalewaay amul fu mu yem kon li ñu war a war ci wax ci war Pastef bari na dama koy yemale fii ñeneen ñi bu ñu ñëwee ñu complété waaye li ma gis fii kontaan naa ci maa ngi ciy remercier bi dina xëpp ci jigéen ñi xaalis bu baree bare bare ngir wëlbati seen xel yi may laaj may laaj ndax jigéenu jàmm gën am na njëg ma ne ndax jigéenu jàmm gën mën na leen jënd ak 10 mille francs ndax mën na ngeen jënd ak 1 ndax mën na ngeen jënd ak 100 millions yéen pas-pas gëm-gëm ngeen am moo tax ngeen war a mën a ànd ak Ouma Sy Diagne mii may la ñu tuuti bàlleen ñu biñ ko waxee ba léegi Ousmane Sonko dina la yóbbu deuxième tour te dina la dóor ba léegi dafa woo ay nit ne leen dañoo bëgg ngeen yàq der waaju ci kanam Sénégalais yi suba am na benn avocat bu woo démb benn soxna ne ko damay def benn conférence altine danaa fa yàq der Ousmane Sonko démb ci guddi gi may ñibbi di dem Dakar soxna si daf maa woo ne ma El Hadj Diouf daf maa woo ne ma dina yàq der Ousmane Sonko ci par conférence de presse lënd ji yónnee nañu ay journalistes fay leen xaalis pour ñu yàq der yónnee nañu ay Samba Boy ñu dem siège Pastef toj ko bërki démb ñi ngi yónnee ñu ngi lan ay pexe mais xam nga lan moo am solo enjeu élection yi mooy li fi nekk te di salte te di ñàkk jub te di luwal xaalis te di fen di sos nañ ko raxas ba mu set wecc tege ko nee indi nit koo xam te ni kii Sénégal moo ko ñor nekkinu Sénégal yi moo ko ñor muy Ousmane Sonko le 24 février élection bi lu gaaw lay doon ndax ñoom dañoo gëm ni jigéen ñi amuñu jot dañuy xaar ba 4 heures ñu dem voté ji mais élection bi lu gaaw lay doon 5 candidats dong dong dong ñoo fa am ku ci nekk boo fa defee 2 minutes ëpp na nañu teel a xëy ku ci ne na nga yee sa moroom ku ci ne na nga woo sa moroom ku ci ne na nga téléphoné sa moroom jàpp ci loxoom ñu dem ci urne yi duy ko ba mu fees ak 4 Ousmane Sonko làpp waaj ba mu mel ni diggante ak wax. lii daal mooy indi coppite ci lañuy ñuy woote ndax ñoom jàpp nañ ne fi nii yaakaar tas na mais tibb nañu xaalis bu bare bare bari bi waaj a dugal moom ci dëkk bi. amuñu bilan nag ndax bu ñu amoon bilan duñ fi nekk di saagante bu ñu amoon bilan duñ fi nekk di wut ku ñuy tëj ci kaso bi ndax kuy taxawul yëkkati loxoom ca kaw ne man maa fi gën a aay bi Sénégal nekkee senegal ba léegi te ku ne tëll nga tiit su fit naaw nga jàpp tëj ci kaso bi amoo bilan. bilan daal bi mu am bilan benn bilan bi mu am mooy ku nekk candidat dinaa la tëj ku ma nar a yàqal dinaa la sosal loolu mooy bilan woo mais Thiès a ngi nii yéen ma wax léegi ne ma dara soppeeku fa moom moo dem ba mandat jeex moom moo toog ba mandat am jeex mu ne bu ñu ma joxaatee mandat dinaa wutal jigéen dinaa wutal jeunes liggéey fan la nekkoon sept ans yi da nelaw waaw dinañ ko yéen ak ne ko demal nga toog ne bokk na ci pom yi jërëjëf pour salaamaaleykum. merci beaucoup maa ngi nuyoo waa Diamaguène

suñ nee gën amul poste de santé suñ nee gën amul lenn lu nga xam yokku na fi té ñom ñu bok ci régime bi ma japp ne nak jàmm gën war na ne ci quartier yi nga xam war nañ réclamer un changement un changement par rapport non seulement régime bi mais par rapport ak li fi nekk depuis 1960 ay nit yu nga xam ne ñoo fi nekk akimo askanu alal euh, askan wi di ci di ko pasar pasare askan wi seen i bëgg-bëgg kenn mënu koo faj jàpp naa ne mbéjum kanam borom moo koy fajal boppam ñun fa ñu dëkk mu di R100 jàpp naa ne bokk na ci leader yi nekk jàmm gën taxaw ne nañu R100 gën dëkk tali ba fa pare na bañ inauguré ko mu nekk lu nga xam ne dañ koy naxee askan wi lu ci bëree bëri ba loolu war a tax ñu ubbi suñuy gët mais xool ci candidat yi cette fois-ci on a la possibilité candidat bu ñu pendant 7 minutes pendant 21 jours ku ci nek wax Sénégal lan la nam pour Sénégal Macky def na fi ñaari at ñu gis lim ñu ci amul commencé wat ñun war nañ taxaw xol le ñu lan ci am mais ñu bañ xol ñun suñu intérêt mais xool xo intérêt xale yi ndax loolu am solo moo di ne élection yi day fal ki nga xam ne cinquante ans yi di ñëw wala vingt cinq ans yi di ñëw alalu Sénégal yépp kooku moo koy gérer te xam ngeen ne pétrole feeñ na fi ressources naturelles yu bari feeñ na ci ay ñu nga xam ne mbir mi commencé gul ñu commencé koo aakimoo ñoom ak seen njaboot di ko sàkkal pexe jàpp naa ne war nañ fexe foqati seen loxo jël nguur gi teg ko ci ay loxo yu yu set te loolu moo tax coalition bii ñuy wax tuddee Sonko président Ousmane Sonko président ñu bëri bokk ci coalition boobu taxaw na dem ci Sénégalais wax ak ñoom pour que ñu changer Sénégal malheureusement ils vont bientôt arriver comme ni ko biram waxee sànq xaalis bu bëri nañ ko tuur ci dëkk bi dinañ dem ci avec yi dinañ dem ci famille jox leen xaalis mais jàpp leen ne seen alal lañ leen delloo liñ bëgg mooy. ngeen wooteel leen ñu réeraat leen juróom-ñaari at bu juróomi at bu juróomi at yu weesu waatee ñëwaat di leen laajaat li nga xam ne joxo laa joxoon ngeen leen ko te li ngeen bëggoon deful leen loolu moo tax ma ne ñun ñëpp nañ dem jëli suñuy carte nañ taxaw ubbi suñuy gët xool candidat yi nga xam ne proposé nañ une alternative un changement Ousmane Sonko jiite loolu muy mag ñii xam ne nekk nañ ci depuis 60 ñu yóbbu leen à la retraite jël ay jeunes yu dynamique am compétence mais également am xam-xam jub jox len réew mi mi Sénégal jëm kanam wa salam ken ko ndax dañ ni dëkk ci dëkk bi defar dëkk bi dako koo gën kon jàmm gën kenn moomu ko waaye bis ni ki njott nañu ni Ousmane Sonko su moomi lepit am fi teer te yene ko ko may donc ñu len ci remercier di remercier sidiane suñu frère di ko wax macha allah liggéeyam rafet na taxawayam rafet na yalla ko yalla dolel di leen wax ni fi ñu toll teggi fi dimbori farata la ndax dimbori 2012 ba 2014 da doon jayaxu xamul won fu mu jëm di ñu li yoonu yokkute. dinu Sénégal plan Sénégal émergent 2014 ba 2016 da doon nelaw nelaw ba yandoor 2017 ay a élection mu 2018 mi ci ay di inauguré ay chantier yu àggul kooku mooy Djimbory dama ni ko fi qui a mi ñun ñoo ko moom santul sàll ban jigéen moo war a xëyati suba ba ngoon jot di tës tësi du noppalu pour am lu mu yóbbu ci këram ban xale moo war a jàngati ba sonn am ay diplôme am di some daf war a jeex saafara bi nag dikk na ndax borom solution ak sina kooku mooy Sonko président ak alliés yu baax yi yaakaarewul yéen sama mbokk jigéen ñi ndax ñun ku fallu ñoo la fal waaye tam ku ñu bëgg a folli dañ lay folli vite fait ma di leen dénk leen le 24 février seen sañsa yu yanj yi macha allah noonu ngeen di xëyee balaa mili voté leen ñëw toog ndax bu ngeen ko deful bu midi passé ñu saboté élection yi ba kenn dootul am temps boo dem voté ji loolu rek laa leen di dénk ñu def ko farata ndax jële fi Macky Sall wax naa leen farata la on a assez souffert dans ce pays ñi am di gën a am ñi ñàkk di gën a ñàkk loolu moo fi war a jeex te ñun ñoo fi jële ñun jigéen ñi jërë ngeen jëf billaahi wallaahi taala lii ñuy def àjjana lañ si yaakaar lii ñuy def àjjana lañ si yaakaar dañu ni nit ñi ñu tekki li liggéey jariñ leen seen réew jariñ leen yàlla rek la ci seen bu dee loo xam ne ñun dañ siy dugg te jëmul àllaaxira yàlla ñu si musal kii sa maam Alaaji Jegéen la lu nit lenn la kii ma àndal tanis tanis église bi lu fi doxal boo ko doxal borom diine dëgg la donc mbokk yi li ñu dajale fii lu defal lu avancé Sénégal ak lu taxaw kon donc li avancé Sénégal yàlla rek la ci seen yàlla nañu ko yàlla defal mbokk yi ñii ay xale la set yoo xam ne nit mën ànd ak ñoom ñun yoon nation nañ bokk ñun RND non maître Sall ñun ñëpp ñoo ànd. Eumeu Sène rek ñoo jaral lu nekk Eumeu li ngay li ngay xaar ci ñun le 24 heure bii ah ñu dañoo war a feete suñu victoire victoire bi ñu war a féete nag yéen waa bokk jom yéen waa Jàmmagan yéen a war a wane seen bopp parce que bisu tey bii li ngeen def Eumeu Sène Diagne dal na man mii tamit sama xel dal na ma di ci problème mu financement da ngeen a war a yeewu seen borom kër yi tëdd ci seen kër yi liggéeyuñu seen doom yi toog jàng ba am diplôme amuñu fu ñu jëm ñu ñëw jox leen ay financement ngeen jël ko lekk ko barki Dembo Njaay la auto police taxaw jàmm gën képp ku jëloon financement rek toroxal nañ leen ngeen war a yeewu su ngeen yeewul ba heure bi dootu leen yeewu dootu leen yeewu de ndax tamit da ngeen a war a xool ñi nga xamante ni dañuy wëri indil leen ñi nga xamanteni ni ci lu sel lañuy dox ñi nga xamanteni ni li ñuy def xam nañ ko man xuja de talal na sama loxo xawma sonko mais ama si doy doyna ma ama si moom mom lañuy sos euh, euh, sago Amasy foo tëdd sa ginnaaw banang ñun wa jàmm gën par nañ pour yow na suñu responsable li lañu am am si nalawal ñoo lay sant ci ko gërëm inshallah parce que dina mel ne liggéey bi tay lay démarrer du nelaw taxaw 24 février jot li nga bëgg le centre alilo ñu jox Ousmane Sonko parce que chacun gagne chez lui et le passé gagne partout nous na lool may slogan bi ñun suñu di ko donc lool rek nañ le doon wax di leen sante di te ay ko am encore fi ak dans les jours à venir dans les heures à venir j'allais dire euh, na ngeen vigilants. Dès que vous êtes responsable nous ne sommes sommes discours de lu Nous ndax kilifa activité le camarade le frère Biram Soleil, je sais que Dakar la donc nous leen di encore une fois de tendre la main aux frères Sonko, Ahmed Sonko. On va travailler ensemble. On va réfléchir ensemble. On mettra tous les moyens à notre disposition pour que l'objectif bu Sonko am une ci vous pouvez compter sur nous Nous sommes tous sommes ngi qui nous ont